asalaamaaleykum suñu mbokki téléspectateurs yi ñu ngi fii ak euh, suñu émission wàccaay tabaski yi ah ci euh, Dakar euh, midi ñi ngi ñëw nag tey fii ci salon bàyyi Astel Fatou Barfakala macha allah comme ni ma leen ko waxee sànq rek fekk fii càmmiñam Kara Kara di sama doom Fatou Barfakala sama doom ji ma bàyyi mu nuyoog yéen Kara nga nuyoog suñu mbokku auditeurs yi. oui maman mbaa yaa ngi am jàmm. sant alhamdulilah. namoon naa leen gisoon naa leen gis di leen rafetlu seen teewluwaay si suñ kër gi. maag Baye Astel sama doom ndey sama jigéen. macha allah nuyu naa leen bu baax daal. waaw ñi am kontante euh, di la di la di la euh, fekk ak yow di def ak yow émission bi Fatou Ba macha allah muy wàccaay tabaski. may lay laaj euh, sama doom ju góor ji euh, ku ne xam na ni fa tubaarfakal la macha allah waajtaay tabaski jigéen ñi fa tubaarfakal dañuy bëgg a changer seen seen seen vis seen seen seen style dañuy bëgg a changer seen seen seen vision macha allah euh, ci kaw loolu yëpp macha allah yow ci sa xeet gi nga xam ne ci nga yëngatu ah lan nga ma mën a wax loo xam ni di nga ko mën a defal jigéen ñi ñu am mbekke daal ci sa wàllu liggéey. Mm-hmm. Fatou Kalla macha allah maman sa wax rafet na donc life bi moo demee noonu quoi. jamono bi ñu toll nii dafa nekk jamonoy defaru. te na ma yàlla baal. Sénégal bariwuñu ñaaw sax mais am na ñu ñaaw daal. te defaru daal bu même bu dul sax cadre ñaaw dafa baax si jigéen. jigéen day faral di defaru. di defar boppam dafa baax. pour ay jëkkëram maanaam ñi koy jege di ko gis di ko gën a bëgg. Mm-hmm. amaana defaru. dafa bokk ci doomu aadama li muy yokk ci yow mënoo ko xam dafa am solo lool moo waral nag ñun ñu gën a dëgëral suñu liggéey wàllum liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey pour rafetal jigéen ñi ñu koy gën a dëgëral di jàppale jigéen ñi di leen defaral yu rafet macha allah ma préciser comme wàllum ongul make up tatouage tout sa kii est daal mhm. ñu ñoo ngi siy dox chaque jour di si gën a avancé ndànk-ndànk mhm. pour jàppale jigéen ñi te xam ne jigéen ñi moom ñoom ñooy suñu yaay bu leen jàppalee dañ leen war a jàppale bu leen jàppale lu a jàppale kon ñu jàppale suñu jigéen ñi. dëgg la waaw euh, suñu mbokk téléspectateurs yi ñu leen di fàttale ba léegi yéen a ngi ak euh, euh, émission wàccaay tabaski fii ci Dakar Midi ñu nekk salon Baye Assel comme ni ma ko waxee accompagné ak son bras droit càmmiñam Kara ñu gën ko xam ci Kara Makeup waaw Kara ci kaw loolu ba léegi ñu àndandoo ak ci euh, émission wàccaay tabaski euh, ci kaw wàccaay tabaski boobu euh, jigéen ñi muy femmes yi ndax ci wàccaay tabaski bi nii ñu nekk ci la seen defaru gën a yokk wala à tout moment ñoom ñu ngi ñëw di defaru jigéen ñi moom daanaka chaque jour elles sont toutes belles comme ni ko waxee woon waaye 2STV yi émission bi fi daan daw uh-huh. elles sont toutes belles ñoom ñëpp a rafet dem na ba ñoom chaque jour dañuy defaru parce que ku nekk ak sa programme bopp uh-huh. léegi nit ñu doog toogatuñ di xaar ba ay korité ay tabaski genre wala ngénte rek uh-huh. pour defaru parce que am na activité yooyu dox te da ngay bëgg fekk foofu sa ay nawle war a def lu rafet sàjj lu baax xam nga yooyu day am solo daal donc moo tax jigéen ñi amatuñ jour képp ku bëgg a defaru rek defaa nga gis ku toog rek jékki-jékki rek gis ma statut wala posté benn affaire bu rafet hmm. mu xam ne moom war na mën a mel nii war na mën a def lu rafet lii comme ça mu ñëw ma defar ko rafet hmm. da ciy baax daal waaw ci kaw loolu dama koy dëggal fatubaar fakkax la macha allah ndax ku ne xam na ne jigéen nag waroo toog ba événement wala ngénte wala nga ne da ngay dem xew nga soo a defaru jigéen da nga war fu ñu la fekk sa kër nga belli fatubaar fakkax la borom kër belli même bu fekkee amoon borom kër belli yow pour boo taxawee sa seetu xam yow yaay kan fatubaar fakkax la ci kaw belli googu nag ah, da ngay ñëw fii ci salon Asel ah feggoog euh, càmmiñam di Kara Makeup fotobafikal euh, doomu jàmbur ma dellu ba léegi di la laaj ci kaw euh, préparation tabaski boobu hmm. ah yan xeetu baax-baax xeetu baax-baax nga xam ni moom ngay utiliser pour pour pour pour pour jigéen ñi daal yan xeetu baax-baax. Hmm. ma xool donk nag ñun booy xool. dañu am esprit d'avancement chaque année ñu dañuy xool li ñu daan liggéey nan lañ ci mun a yokk mais xalaatuñ ci wàññi lenn parce que àdduna mooy doxee noonu esprit de dépassement il faut que nga am ay produits yu bees chaque année dinañ xewal lu bees dinañ ñor di jëmale ci kanam te nag boo nekkul ndaw liggéey tàmm nañ ci ndaw da ngay a xam lan la xale yi soxla te xale yi dañoo nekk suñu xarit mm-hmm. ñu yàgg ak ñoom xam nga mm-hmm. bokk Sénégal bi bokk lépp daal moo tax ñu dañuy xam liñ soxla mm-hmm. moo tax année bi ñu ñoo leen indil ay moddu tabaski uh-huh. ay sil yoo xam ne moo tabaski la xef boobu na ñuy woowee infidel uh-huh. si moddu tabaski bi la génn génn na moddu karité mais bariwul woon uh-huh. ak yeneen affaire daal yu bëri. ongle yi am na ay yu ñu tuddee mode tabaski spécialement. Uh-huh. moo ngi fi di leen xaar. Uh-huh. incha allahu rabbi ba si ay tatouage damay dem am ay tatouage yu mode korite tabaski. Ah. damaa koy créer sama bopp uh-huh. donc. am na affaire yu baax yu bëri leen di xaar fii uh-huh. pare leen ngeen ñëw tabaski bi incha allah du easy dara du yomb. ah kon sama mbokku téléspectateurs yi dégg ngeen ko xale yi jongoma yi les femmes féroces fa tubaab fakal la macha allah affaire yi fii la ci salon Baye Assel ah feggoog càmmiñam di Kara Baye Kara ah Kara make Krasil Kratatou fa tubaar fa kàlla macha allah ah waaw ah, doomu jàmbur ba léegi ma lay laaj ci kaw léegi da nga tudd tatou boobu ah, ci wàllum tatou boobu ndax ah, ay jigéen rek ngeen fi tatou wala da ngeen tatou góor ak ndax am na jigéen ñoo xam ne dañuy bëgg nga leen tattu ci partie yi nga xam ni day feeñ ak ci partie yi nga xam ni partie intime la. Mm-hmm. mama moo xool daanaka question bu solo nga laajte mm-hmm. parce que. ñu ñëpp la ñuy tatoué mm-hmm. mag xale góor jigéen tatouage partie intime lañ koy tatoué ah. mm-hmm. mais du nekk n'importe où lañ koy tatoué quoi dañ koy tatoué par déplacement mm-hmm. am nañ tamit place uniquement pour loolu ah. boo ñemewul mën nañ la fekk ba sa jëkkër toog ñu tatoué la parce que liggéey mooy boole yow ñu liggéey dong la ñuy def lépp luñ soxla am nañ ko donc liggéey moo ñu yëkkati liggéey la ñuy def loo mënti bëgg si li nga liggéey foo bëgg ñu tatouer la dinañ la tatouer waaye am ñu dara lu si ciy ragal quoi parce que job la quoi yàlla muñ ko na taw waaw ñu koy rafet bu baax sax te xam ne tamit liggéey la liggéey moom daa bu bëri façon mhm. képp ku ci xalaat ku ñaaw tamit te du ñàkk nag ñu la si briefé képp ku ci xalaat bu ñaaw ñu xam ne fu mu position bu baax te kenn nekk ñu gënuñoo nekk góor gu baax. comprendre ga am na yenn détails yu bëri yoo xamante ni xaj ñu si. Mm-hmm. alors liggéey moom méthode de travail travail la. Mm-hmm. alors ça va. Mm-hmm. Euh, waaw euh, ñu dellu si bi léegi ci foofu rek ci point boobu la ñuy toll ba léegi ah, euh, ma lay laaj rek Kara Kara Makeup mm, ci tatu bi ba léegi ci la ñuy des ba léegi xam nga ne nga sànq nee nga am nga place yoo xam ne soo bëggee da ngeen da ngeen fa yóbbu kii bëgg tatu da ngeen tatu ko fa am na place yoo xam ni euh, boo bëggee tam ñu fekk la ba sa bii kër wane nga sax ni yéen li ngeen di def amoo leen ci ragal ak tiit fa tubaar fakàlla ba wane ni même ku toog sa wetu borom kër sax ah ñeme ngeen ko fa taturé pour yéen bu ñu déggee rek su ma déggee sa wax daal mooy fa tubaar fakàlla macha allah yéen seen liggéey bi don la bëgg-bëgg la ambition la te tam loo xam ni amu leen loo xam ni euh, sakki sàkka la wala loo xam ne lu neexu yàlla suñu borom la. Mm-hmm. képp ku nekk rek koo gis muy dox amaana am na kilifa des fois rek la gars yi di ñaawal yéen wax naan kii moom ana kilifaam nangam ah. mais Sénégal lépp lu ñu ñeme ñeme ñeme ñeme ku nekk am na kilifaam bu demee dina am ku mu wér toog a waxtaan ak moom mm. amaana ñun def lu bon taxu ñoo jóg mm-hmm. donte yàlla mooy ñettoo yenn genre liggéey mais dañuy assumer te xam ne tamit lii liggéey dong la yem place liggéey mm. ah respecté suñu liggéey def ko comme niñ ko bëggee ah. Ah. mun ko macha allah nag ba ñëpp rafetlu ko ñëpp nangu ko xale jigéen moom duñ maye dara dañoo mën a defante waaw noonu la demee ñu leen di fettali suñu mbokk téléspectateurs yi yéen a ngi fii ak seen émission waataay tabaski ah ñu ñëwoon fii tey ci euh, salon Baye Asel fekk mu feggoog càmbiñam kara ñu koy wax kara makeup kara tattoo fa tubaar fakala allah waaw euh, doomu jaamu ñu ñëw ba léegi ci man ci point boobu laay des ba léegi waaw ci point boobu laay des ba léegi ndax euh, nag dafa am euh, fatubaar fakal la xale yoo xam ni euh, xam naa di ngeen ci liggéey bi di ngeen ci dateeg euh, nu ñu koy waxee ci kii bu nekk daal waaw clientèle bu nekk ñoo xam ni tat yi moo leen tax a jóg ak ñoo xam ni ñëw pour yàqal la moo leen tax a jóg ak ñoo xam ni leneen ci ginna moo leen tax a jóg macha allah daanaka loolu booy xool moment liggéey yëpp la mm-hmm. parce que man mën naa ne du tatu kase mooy sama métier mm-hmm. on dirait l'homme douze métiers ou bien treize sax su ma si neexee yokk ci benn. donc am naa bëri naa métier daal. Mhm. bëri naa métier li may liggéey bëri na. Mhm. donc di nga gis que façon cliente bu nekk. Mhm. parce que ku nekk rek ak li ko intéressé ci donte ñenn ñi sax peut-être sa tour la ñuy dégg. mu gën a dem. am na yéene recevoir. yow mi nga xamante ne yaay liggéey pour xam yow ban façon neen nga ak ni nga mel ah. am ñeneen ñoo xamante leneen ak leen moo la yëkkati mais boo yàggul si liggéey bi am expérience de vie ak expérience de travail ah. doo comprendre loolu yëpp peut-être mën ngaa liggéeyante sa boor donc rek aju ah. donc nag ñuñ maam dañoo yar quoi ñu respecté suñu liggéey di ko def nu mu waree hmm. texte di sóoraale loolu lépp képp ku ñëw rek xam nañ yow lan moo lay yëkkati dëgg la dëgg la te incha allah rabbi dëgg waaw fa tubaar fakal la macha allah euh, macha allah man sax nag tubaar fakal la comme ni ma leen ko waxee fii salon Baye Assel fegook ah, euh, euh, feggoog càmmiñam di Kara. yàlla jox xam naa ne yàlla jox na leen fa tubaar fakal la cliente yoo xam ni ah duñu ay nitu safaan. fa tubaar fakal la ay nit lañu ndax yéen nitu nit ñi ngeen fa tubaar la ba léegi ma lay laaj Kara. ndax ku ne xam na la ni Kara tey ñu ngi ko fekk fii mhm. ah mais am na beneen milieu boo xam ni foofu lañ ko daan fekk Fatou Bar Fakala macha allah Kara ñi ngi ko xamee woon ci euh, marché bi mu yor benn place am Fatou Bar Fakala nekk fa ba gëm métier am lool nag gëm métier am lool Fatou Bar ñu lay laaj tey nan nga def ba ñëw fii euh, euh, ci ci bi daal. ñi avant ñoo ñëw fii ba déggook suñu xarit suñu jigéen a Astel di liggéey moom. Uh-huh. fiñ jaar bëri na lool. donte bu ñu toogoon fi di ko wax sax day bëri lool. ñu résumé la tuuti rek. Mhm. depuis bi may njëkk a tatoué boobu léegi presque war na def 6 ans. waaye mais au début doo ko gëm bu baax uh-huh. daanaka mars samedi ba mars samedi laa doon ñëw gontu ñëw taxale tuuti dem nekkaat sama yeneen projet yi nekk samay affaire waaw uh-huh. après yàlla def sama benn xarit bu baax moom tamit sama rakk la rakk la ci man maag uh-huh. magam ñooy ànd di ma forcer naan ma ñëwal ma ko boole am na place marché liggéey bi nekkul par samedi rek lay doo chaque jour mais daanaka événement ba événement laa doon takk ay big ak yooyu di defar mais nag bi ma xëccee ci loolu ma dem ba ci biir xam ne tamit liggéey bi donte xeeb xeebuwul sax. mais jar na bàyyi xel daal nit ñi bëgg nañ ko te boo mënee sa métier nit ñi dinañ la wóolu. te man moom yàlla daal def lépp lu ma dugg rek dama siy dem ba jeex. faa mu maîtriser ko door am jàmm. dëgg la ma koy maîtriser nag. ambition bi ma am ci liggéey bi. ma daje ceeg nit ñu baax ñoo xamante ni wóolu nañ ma bëgg ma bëgg koo xamante ni li ñuy fekk dem na ba raw liggéey. moo tax ma gën a fonk liggéey bi dem ba bàyyi ko sax day doon problème. avant ma ñëw sàmm tournage rek maa ngi la ci gis. ok voilà loolu noonu dëgg la di ko rafetlu. Ah. di ko nuyuwaale sax de passage Jalla. Mm-hmm. xale bu jigéen bu baax macha allah nañ ko jàppale may ko doole te xam ni macha allah mën na li muy def torop donte ñu ñoo ngi si domaine yooyu aussi mais teewul ñu am na yeneen métier yu bari ba ba ci décoration yi nii comme ça yi yëpp man maa koy def comme ça am na yeneen métier daal mais liggéey bi des fois di nga see xamante ak nit xamante ni macha allah ay nit ñu mat a jàpp lañ waaw ah, teg si loolu gën a yokk a tax ñu nekk ci bërëb bi mais à travers loolu noonu ñuy avancé di dem am naa fi place liggéey naa liggéey naa ay nit liggéey ak ay nit ñu bari ba mm-hmm. toll fii ma toll. Mm-hmm. yàlla dogal tey may liggéey ak sama jigéen ñii di Astel. Mm-hmm. waaw di ko rafetlu bu baax a baax baax baax baax tamit te xam ne nit ku baax la ku neex a liggéey loolu la. te maa si sentir sama bopp liggéey bu baax ak moom. nit ku baax la daal. yàlla na ko yàlla la fa jot la fa laal leen jot ñun ñëpp. waaw macha allah ñu leen di fàttali suñu mbokku téléspectateurs yi di leen wax ni yéen a ngi ci yéen ngi suivre ba léegi émission wàccaay tabaski ñu ñëwoon fii tey ci euh, salon Asel Baye Asel ah feggoog càmmiñam Kara waaw euh, Kara xam naa ni nag euh, fa tabaarakalla macha allah émission bi neex na man doyalu ma te xam naa suñu mbokku téléspectateurs yi tam doyalu ñu <laughs> waaw mu am benn question bu mujj bu ma lay laaj rek ni la ndax Kara mus nga am koo ba pare. mu nii la bëgguma motif bii ak euh, bu fekkee motif boobu bëgg ko nan lañ koy dindee ndax dind bi dina doon lu yomb voilà. ok genre tatouage dafa xaw a doy waar daal donte bëri nañu koy liggéey jamono ji mais tatouage faux ak original dafa am différence bu bari seen diggante maa ngi si mës a am bës benn yoon mu nekk si tatouage. faux bi bi. Mhm. comme ça bi ñuy wax ñuulal. boobu rek laa am ku mu mës a defaral mu ne ma bii neexuma. Mhm. ki ma njëkk a maa ngi koy ko maa ngi nekk débutant. affaire bi metti ma nag. Mhm. jàppoon ma. tout est yàlla def nekkete kooku waroon nekk sama xarit. après macha allah daal. nekkee yooyu yëpp yàlla bu mooy ubbi ay buntam daal. donte foofu la ko jaarale mais bu dee tatouage original bi nga xamante ni moom moo nekk nii. xool ñu ko muy nekk lii gaaw a deñ daal ñii naan amul machine bu koy dindi ñii uh-huh. naan nangam alors que fii Sénégal y a machine yu koy dindi am na sax hôpital clinique yoo xam te boo demee ñu dindi la sa tatouage ah mais ñenn nit ñi dañ lay gëmloo ne que lii boo ko defee du deñ genre nangam nangam alors que lii day deñ uh-huh. dañ koy dindi uh-huh. sëgëm dañ lay defal chirurgie opéré la génneel nekk sa biir tubaab bi waaye Kara mu del di la laaj ba léegi parce que ma dégg ñu naan euh, jullit du du du du du tatu mm-hmm. yow mi nga xam ne da ciy liggéey ah nekk ci à tout temps ndax loolu euh, yéenu na maana wala li ñu wax euh, am na wala. supposons ku nekk sa xel. ñun sànq la koy briefing di la ko waxaat quoi ñun du ñu ay nit ku bon. franchement man mi di wax ak yow. ñu ngi woowee Kara sel mais sama tur dëgg moo gën a sell bëgguma ko sax wax ni comprendre nga damay julli def lépp te ay maam baax la ñu am te damaa mais lekk sa xol moo solo. dëgg li nga xamante ni yaa ngi koy dund bu dëgg loolu moom am solo. dëgg la ni ñu xam yow yaay kan. sa waajur xam la ñëw xam ne yow nit ku baax nga. kon le reste bul dégloo ko nit ñi. dëgg la waaw ah, parce que nit ñi dañ lay tardé rek ñoom ñoo ngi dund seen dund. Mhm. donc tatouage taxul nga bon quoi. dëgg la si àdduna lañ koy fekk te fi lañ koy bàyyi. la day day fii lay des. yàlla sa xol la soxla sa ruu. yaram bi après sax yi ñoo koy lekk. mais lu am solo daal mooy booy tatoué. nga tatoué loo xamante ne incha day wax ça parle. la nga xam te doo ko xool ba découragé mu lay fàttali loo xamante ni. si àdduna la mbiru àdduna la. maanaam loo xamante ni du la. du la saalib doo daal mais amaana ñenn yi dañuy gis benn modèle mu neex leen rek wala gis benn dessin bu rafet ne tatoué ma léegi alors que du loolu tatouage dafa war a nekk luy wax te loolu dafa am solo ñu bëri duñ ko bàyyi xel mooy waral des fois gis ko tatoué dem na nii lii bëggatuma ko ki ma ko defaral mënul ou bien koo xamante ni dafa gis liggéey bi mu neex ko mm-hmm. mu taqale ay machine am taqale ay pusoom ñëw commencé tatoué defal la ay fleur yu baaxu te loxo bi mënul sax dessiné te faaw nga am don dessin liggéey bi boo ko def faaw nga mun dessin mën yenn affaires yi loolu indi benn difficulté bi ndax yenn gars yi di bëgg di nii di def nangam alors mais fii moom ku fi ñëw franchement mm-hmm. lépp loo bëgg di ko am mm-hmm. franchement noonu la ñuy liggéey maanaam daal su ma déggee sa biir wax mooy métier dañ koy jàng Mhm. kenn ko fortaatu fatubaar fakàlla macha allah suñu mbokku téléspectateurs yi ñu leen di fàttali yéen a ngi fii ci Dakar Midi ñu ànd ak yéen ci euh, émission wàccaay tabaski ñu ñëwoon fii tey euh, ci salon Baye Assel ah mu feggoog càmmiñam di Kara Kara make up Kara tattoo euh, Kara sil voilà léegi nag euh, doomu jàmbur xam naa ni waxtaan wi neex na lool fa tubaar fakàlla macha allah doyalu te xam naa suñu bokk yi tam ñoom doyalu waaw mais nag euh, beneen yoon ay dàq mm. ah euh, ñu ñu lay laaj rek lan ngay tàggatoog suñu bokk téléspectateurs yi ak lan ngay tàggatoog sa clientes yi ak lan nga leen di wax ah ñu yi fi nekk xeetu baax baax fi nekk mm, ñu ñu ñu ñu ñëw balaa comme par exemple ni naan ne yéexatu ñàkk la romb ci wéccu ok ok donc man maa ngi tàggatoo léegi ba ma xalaat sama client yi bu baax uh-huh. client yi nañ préparé uh-huh. te xàmmee tamit ñi leen defaral lu baax uh-huh. liggéey boo xam ne qualité la parce que jamono dem na ba léegi liggéey bi ñu bëri daaw nañ wut si kaw ku nekk ñëw na di ñor di si wetam naan maa ko mën ak nangam hmm. mais su ma sañoon ñu si bëri ñu dem jàngiwaat dessin dem yokkaat xam-xam hmm. parce que fii kenn yéenewul kenn lu bon ku nekk say client ku nekk ki hmm. man boo fi nekkoon laa la wax client yi fees dell mun maa defaral ñëpp ñun seen wala ñun nekk sa mursak la laa defaral ñi des ñibbi gedd parce que mënu maa defaral ñëpp donc ku nekk war naa mën a jàngaat liggéey bi nga xamante ne mu ngi koy def bu baax pour mën a satisfaire clientam mu mm. bañ a di dem feneen di ko jëw naan kii li ma defal baaxul wala nangam saytuwaat liggéey bu baax te loolu am na solo lool. xam tamit ki nga xamante ne liggéey bi allergie na ko ak allergie wu ko. xàmmee différence su liggéey bi dafa am solo bu baax. waaw maa ngi koy sànniwaat kàddu boobu noonu pour ñi nga xamante ne jot nañ ko fekkee. parce que fii bëri na ñuy liggéey liggéey bi. Mhm. donc sama sama jigéen ñi tamit. Mhm. maa ngi leen di woo naan leen Kara seen góor moom moo leen di woo événement bi ngeen mu defal leen ay bagages yu baax. donte ñenn ñi gëj nañ gisante waaw am na xeet baax baax yoo xamante ni daanaka caméra bi après dina leen ko won man mënu maa détail yooyu lu ko mais am na ay sil permanent am na kii nii kay ongle permanent gel et tout simple lépp dañ koy def régime ah dafa dégg naa nga ni euh, silu mode tabaski ak infidèle mode tabaski infidèle ñoo ngi ci ba si tatouage aussi tatouage moog tabaski maa ngi ak tatouage bu baax képp ko am sa doom bu la sonal bu bëgg tatouage bëgg ay affaire mafia karaab yëpp a ngi fii dinañ la defaral ay tatouage ene yu baax ay affaire yu macha allah képp bañ na ko ba sax képp ku am xew si man ngay ñëw ma defaral ay fëddën nga door am jàmm par exemple kon daw si leen daal ngeen ñëw wut si ko karaawul ngeek ay affaire bu baax am waaw di tàggoo di nuyu tamit sama yaay bu baax di nuyu saa maam bi nga xam te moom a yar ba ma toll nii. macha allah nuyu bu baax ay ay nit yu baax lañ franchement te mosuñu maa nakaral chaque jour mosuma manqué dara donte sax am naa beneen métier mais mosuñu bëgg ma manqué dara yar nañ ma yar bu rafet jàng naa nu ma war a jàngee macha allah quoi mais ku nekk ak sa opinion daal ku nekk ak sa bëgg-bëgg tamit. donte yàlla moo ñu xiis genre liggéey bii nii di ko sant yàlla bu baax di leen nuyu bu baax te xam ne ay ñu baax la di leen gërëm yow tamit di leen sant di leen ak Dakar Dakar comment <laughs> Dakar midi uh-huh. di leen nuyu di leen sawla bu baax te xam ne tamit yéen a ngi def daal liggéey bu jaar yoon bu am solo franchement parce que suñ liggéey bi yàgg nañ ci mais bërul ñooy gis daal ñu ñëw seet si liggéey bi di yaatal ak ñu mais am na solo daal Euh, bëgg naa tamit ni ngeen ma seet seet nii ngeen ma yeneen mbokk liggéeykat yi parce que ñu ñëpp yéene nañ leen nañ ko gën a moderniser bu gën a tàng waaw lool day am sax macha allah ndax ne nee nañu wàccaay tabaski mm-hmm. te wàccaay tabaski nag ñëpp ngi ci biir mm-hmm. ah, lépp ñëpp xaj nañ ci Fatou Bass Kalla macha allah waaw suñu mbokku téléspectateurs yi ah, yéen a ngi woon di suivre euh, émission wàccaay tabaski ñu ñëwoon fii tey ci salon bay Assel mu feggoog càmmiñam Kara Kara Kara make-up Kara tattoo Fatou Bass Kalla macha allah ah, fii la ana parate ci wàccaay tabaski ji Kara ak Assel ku ñu maykubul wala ku ñu siidul baaxul may nuyuwaale à passage sama rakk Ndeye faatu Ndiaye di nuyu sama doom Sacha Balago ah jigéenu Kara di nuyu ñëpp ñi nga xam ni yéen a ngi ñuy seetaan dañuy safoo jaajëf.